wa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd sun diine ji nee na ku ci sos loo xam ne bokku ci dañ la koy delloo kon loolu lu mat a am bàyyi xel la ngir sa jaamu yàlla dëppoo ak sunna nag faaw juróom benn yëf yi daje ci mu door a dëppoo ak sunna xatta tataxaqaqa almutaabaa la budda min sittati awsaaf الوصف الأول أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها jaamu yàlla gi dafa war a dëppoog sharia ci sababam léeg-léeg jaamu yàlla yi day am sabab yoo xam ne moo tax ñi di ko def masalan siiwe nañ lool lii fi jege lool muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi nu nekk muy rajab léeg-léeg nit ñi dañ koy wutal ak feet wala ñu di ko wutal ay xew-xew luy sabab sa ñi ne bis boobu ci lañ rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon jaamu yàlla lañ cay def ndaxte ixtifaalaat yooyu ñuy wax wala feet yiñ ciy def wala xumbeen ya ñaare lañ ca bëgg mooy tuyaaba wala déet su fekkee tuyaaba lañ ci bëgg loolu mooy jaamu yàlla kon jaamu yàlla googu luy sababam ñu ne ci lañ rañaane woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ndax loolu sababu ak jaamu yàlla la goo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam xam na ko ñu ne ñu xool kon kooku ak jaamu yàlla lay doon goo xam ne wuute na ak sharia ci sababam nu mu wuuteeg sharia moo di ne ba ci jëkk saxul ne ci histoire saxul ci histoire ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci guddig ñaar fukki fan ak juróom-ñaar lañ ko rañaane woon kooku saxul ah ku ne am naa dalil ci ne sax na kon dañuy wax ne téere xadiis a ngoog dawaawiinu sunna yi am ak téere taarix yi sax indil nu benn riwaaya boo xam ne bu wér la bu sax buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci guddi googu lañ ko rañaane woon riwaaya bu mel noonu amul ku la ne am na nee ko demal indil ma ko te wax ma ci ban la nekk du la ko yut kenn tanewu la ci kon loolu wérut ci wàllu histoire ne ci guddi googu la woon wuute nañ sax ndax weer wi weeru rajab la am déet waaye la gën a wér mooy ci weeru rajab la gan guddi la saxut ci histoire mu des ba tey ndax su fekkoon ne dem nañ ba mu wér ne guddi googu lañ ko rañaane woon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ak jaamu yàlla war na ci am goo xam ne noonu jullit yi dañuy daje di ko def spécial pour guddi googu ñu ne ah bu fekkee sharia digale diglewu ko day jaamu yàlla googa du wér ndax sharia digle na ko ñu ne déedéet yonente bi alayhi salaatu wasalaam diglewu ci leen su fekkoon ne sax na itam foofu nag saxul kon kooku liñ ciy joxe mooy menn misaal ci wane ne jaamu yàlla gi ngir mu dëppoo ak sunna faw su fekkee gu am sabab la sabab sa na wér ci sunna sabab sa na wér ci sunna kon benn misaala ngoog ci jaamu yàlla goo xam ne sababam eh, saxul ci sunna ñaareel bi an takuna al ibadatu muwafiqatan lil sharia fi jinsiha jaamu yàlla gi dafa war a dëppoo ak sharia ci qualité xeetam xeetu jaamu yàlla gi ku ci doon joxe misaal mu gàtt boroom xam-xam yi danañ ko faral di joxe moo di eh, ku tëbaskee woon aw fas ndax na ne xeetu xeet woowu muy fas des na ko tabaskee loolu saxul ku tabaskee woon aw fas kon ak jaamu yàlla am daal dinay wuteeg sharia ci lan la wuteeg moom ci jinsam ci fa ci kali ci xeetam ñetteel ba an takuna al ibadatu muwafiqatan li sharia fi qadriha jaamu yàlla gi dafa war a dëppoo ak sharia ci ab limam su fekkee ne jaamu yàlla ga dañ koo lim soo jëloon al salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ne nit ki naf koy def weeri yoon ak ñett soo doon def julli goo julli yow def ko fanweeri yoon ak juróom ah amul xilaaf ci boroom xam-xami lislaam ci ne wérut soo doon taxawaloon di julli farata jàng sa fatixa ba mu àgg nga jàngaat jeneen fatixa te ko boroom xam-xami lislaam wute wuñ ci ne sa julli yàqu na ah te lu baax la bu nit jóge fële ne ah da ngeen di tere ku jàng faatiha déedéet kenn terewu ko waaye ndax sax na sax na julli farata ga jàng ci faatiha ñaari yoon ci benn rakka loolu saxul borom xam-xam fiq dañ lay wax ne loolu ku ko def sa googa julli yàqu na kon lim ba nga xam ne moom la sharia ne lii nàngam la bul yokk bul wàññi léeg-léeg na nga gis lu mel ne ay zikkar yoo xam ne dañ koo wutal lim su boobaa yemal ci lim ba gis yoo xam ne wutaluñ ko lim dañ koo ubbi ne la mu ngoog lu ci gën a bari te sell rek moo ca gën loolaat ba tey bul wutal lim defal rek na la ko sa waxtu joxe boo mënee def junni tey defal junni jërul sax wàññi toogal rek jël temps boo xam ne da ngay da ngay tudd laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahul la wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kooku zikkar la boo xam ne mutlaq la dañ ko ubbi toogal sikkar ci ni la ko sa waxtu maye bu la maye fanweeri minute toogal def ko bu la maye fukki minute bu la maye ci si waxtu nam la ko maye jarut sax ngay xam lim bi nu mu toll ndax ka nga koy defal moom xam ne ñaata la muy sun borom tabaraka wa taala te lee moo bari nag bu wëttuwul ngay naw sa bopp na naa ah, li ma sikkar bari na ndax man defe naa ne tey jii tudd naa mi junni démb defoon naa mi junni boo ko boolee at mi boo tudd dana wax laa ilaha illallah ci at mi nangami yoon su ko defee woru day daal di dikk kon jarut ngay ci lim bi ginnaaw boroom bi tabaraka wa taala moom du sànq jëfi képp kuy jëf kon loolu lu ma ta xamaale la euh, ñeenteel bi an takuna al ibadatu muwafiqatan li sharia fi kayfiyatiha jaamu yàlla gi ngir mu wér ngir mu dëppoog sunna fa faw mu dëppoog moom ci melokaanam su fekkee ne borom day roy sunna dana jiim a lu ba xam jaamu yàlla gi nan la ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defe mu defe ko noonu ndax su juyoog ni mu ko doon defee rek sa jaamu yàlla day daal di yàqu du wér maanaam sa topp sun na day daal di day daal di manqué su dikkoon di jàpp tànkum ndoxam dikk tàmbalee ci raxas ay tànkam bu noppee raxas kanamam salfaañe ko defe ko nu ko neexe su àggalee cër yi war a tooy yépp teñ war leen a raxas raxas na ko yeñ war a masaa masa na ko waaye juuyoo na ak sunna googa jaamu yàlla dëppoo wut ak na ci lan la sun na ñu ne la fii kayfiyatiha maanaam ci melokaanam melokaanu jaamu yàlla gi mu bu wuteeg sunna rek googa jaamu yàlla day daal di doyadi juróomeel ba an takuna al ibadatu muwafiqatan li shariati fi zaman su fekkee jaamu yàlla gi sharia da ko wutal jamono joo xam ne ca lañ ko war a def sëñ te juuyoo ak jamono jooja masalan sune woon day woor ramadan ci chaban wala daf koy woor ci rajo bi ñu nekk ndaxte bu ñëwee dafa am programme yu mu ci war a def nangam nangam nangam nangam soppi weeru koor woor ko ci jamono ji <coughs> kon amul benn werante ci ne wooru weeru kooram wérut maanaam wóoragul weeru koor su ramadan ñëwee ba tey mi ngi ci baatam su ko wóorul kon bor la ci kawam ah loolu nag bokkul ak su fekkoon ne ramadan dafa ñëw mu am ngànt wóoru ko ba ci rajab tey mu dikk woor ko ci weer wi bu boobaa dana am koor su ko wooree ci chaabaan ba tey dana am koor waaye su fekkoon ne ramadan ak séegul nag mu ne dama koy gàttandu daal di bëgg a woor rajab ngir mu toog palaasu ramadan loolu dañ lay wax ne kooku wuute na ak sunna te baaxul lan la wuuteeg sunna ñu ne la fi zaman muy jamono yi moom ñoo wuute moo tax benn qaida muy benn régal ci sharia dañ lay wax ne kullu ibadatin muaqqata ida axrajaha al insanu an waqtiha biduni udrin fa hiya gayru maqbula bal marduda gépp jaamu yàlla goo xam ne sharia daf ko wutal waxtu woo xam ne fa lañ ko war a defee nga ñëw génn waxtu woowu bañ ko caa def te amoo ngant kooku jeex na yàlla duutu ko nangu googa jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala du ko nangu juróom benneel ba te mooy bu mujj ba mooy an takuna muwafiqatan li sharia fi makaniha jaamu yàlla gi bu fekkee ne dañ koo wutal bërëb ca béréb boobu rek ca lañ ko mën a defe waaye boo ko defee feneen du baax boo jekki woon ba yowmal xajjil akbar bis bi nga xam ne mooy bisub aj gu mag gi mu yowmu arafaat juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski nit ña taxaw arafa nga ne ah arafa ab àll la te kaaba gi mooy li gën a tedd ci kaw suuf kon naa dem taxaw yi foofa man nit ña yendu arafaat nga dikk yendu màkka nekk fa kaaba ga di jullee ka ñaan ak a wër boroom xam-xami lislaam wuute wuñ ci ne sag aj baaxut yàqu na lu baax nga doon def de ñu waaw lu baax la doon def waaye nag ak ajam yàquna war naa jóge beneen yoon war naa dikk aj si waat ngir ak aj man koo wàcc loolu lu tax ñu ne jaamu yàlla ga dafa wuute ak na ko yàlla tere woon ci wàllu place béréb bañ ne woon nañ fa nekk bis sàngam dafa nekkut bis booba kon jaamu yàlla gi faaw mu dëppoo ak sharia ci yooyu ngir ñi door na nit ki topp na sunna waaye lu mu ci juyoo lu néew néew rek juyoo na ak sunna léeg-léeg nag juyoo gi ak sunna day àgg ci yàq jaamu yàlla gi comme ni ngeen ko gisee ci yenn misaal yi léeg-léegi day wàññi dara jëb jaamu yàlla gi hmm? léeg mu wàññi ko ndax it kat léeg-léeg nga gis ay jaamu yàlla yoo xam ne nit ñi dañ koy def defin woo xam ne wuute na ak definu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yow xëy na doo mën a àtte ne jaamu yàlla gi yàqu na waaye danga nga gis ne da nga gis ne manqué na wuute na ak ni yonente bi alayhi salatu wasalaam daan def dinaa la ci ci julli di langal ay loxo julli bàyyi say loxo mu lang kooku aw julliin la woo xam ne nun dun ci sukkandiku ngir wax na julli gi baaxul waaye nag juuyoon ak sunna ndax saxul benn yoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mas naa taxawal julli lu dul dafa jël loxo ndey jooram teg ko ci loxo càmmooñam boole leen teg ko ci dënnam noonu la daan jullee amul nag benn xadiis boo xam ne daf lay wax ne mas naa jullee neneen du xadis bu wér du xadis bu wérut kon ka def loola duñ wax ne julleem yàqu na waaye dañuy wax ne juuyoo na ak sunna ci kayfiya ba ca melokaanu na yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon misaal la mu siiw rek ñu jublu cee jox misaal waaye bari na ay misaal bokk na nag ci loo xam ne danañu jox importance su laa ilaha illallah gannaaw boo xamee ne xam nañ ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñoo ànd ba noppi ñu xam ne li lay gën a déggal laa ilaha illallah moo di tawxid boo ko xoolee ñetti xaaj la tawxidu rububiya tawxidu uluhiya tawxidu asmaai wa sifaat tawxidu rububiya mooy nga gëm ne borom bi tabaraka wa taala mooy ki bind mooy ki wërsëgale mooy dundal mooy rey tawxidul uluhiya mooy nga gëm ne yàlla mi dong moo yeyoo jaamu tawxidul asmaai wa sifaat mooy tur yi yàlla jox boppam ak melokaan yi mu jox boppam ci alquran ak sunna nga gëm ko nam ko waxe loolu mooy gàttal yooyu buñ delsee nag xool la ilaha illallah dañuy gis ne dafa takkoo ak ñetti xeeti tawxid yooyu donte ne tawxidul uluhiya moom moom lay firiw directement waaye teewul day lënkaloo ak xeeti tawxid yi ci des danaa la jox ay misaal ci ak lënkaloom ak tawxidu rububiya bi nga xam ne mooy gëm ne borom bi tabaraka wa taala mooy wërsëgal mooy dundal mooy rey yàlla nee na am man xalaqa alsamawati wal ard wa anzala lakum min alsamai maan fa ambatna bihi xadaiqa data bahja ma kaana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum maa allah bal hum qawmun yaadiluun daf laa waxal yoo xam ne tawxidu rububiyya la ba noppi indil la laa ilaha illa allah mu di am man xalaqa samawati wal ard kan laa lay laaj moo bind asamaan yi ak suuf yi wa anzala lakum min asamaai maan te wàcceel leen ndox mu jóge ci kaw asamaan si fa ambatna bihi xadaaiqa data bahja nee na mu saxal ci ñax mu rafet maa kaana lakum an tumbitu shajaraha yéen su ngeen doon jéem seen pexe bopp mun leen koo tax a sax li nga man yow mooy fab garab gi samp fi suuf ah, waaye boo ko sampee ba àggal boo ko bàyyee noonu mu dee boo jëlee jiw wi def ko ci suuf te tawul du sax kon yéen mënu leen ci dara da ngeen di sabablu rek ma kana lakum an tumbitu shajaraha lum ca teg a ilahun ma allah ndax kon am na jëreen yàlla ju an ju bokkul ak yàlla lay tontu la mooy déedéet kon foofu indil na la tawxidul rububiyya ba noppi mottalee ko tawxidul uluhiyya mooy nga xam ne yàlla dong mu yeyoo jaamu lu mu ca teg am man jaala al arda qararan wa jaala xilaalaha anhaara wa jaala fiha rawaasi wa jaala bayna albahrayni xaajiza a ilahum ma allah bal aktharuhum laa yaalamuun mu ne yàlla moomu mooy ki nga xam ne moo def suuf si ba ngeen mën a dox ci kaw te du ngeen am problème moo def ci biir suuf soosu ay dex moo liggéey ay montagnes yoo xam ne mooy tëye suuf si ba mu ne degg te moom borom boobu tabaraka wa moo fekk diggante dex ak géej kenn ku ne mu jox ko benn caf ko bu bokk ak moroom ci boo dikkoon ba fañ daje ñoom ñaar dangay ngay mën a tànk fii mos mu saf xorom nga tànk fii mos du saf xorom fañ taqaloo ñoom ñaar wa jaala bayna albahrayni xaajizan muy lu doy waar mu ne kon ki def loolu a ilahun ma allah ndax kon yeneen yàlla mën naa am judul jooju kon tontu la ba tey mooy mu waxaat ne qul ya ayuha annaasu inni rasulullahi ilaykum jamian alladi lahu mulku alsamawati wal ard la ilaha dugal ko ci biir mu ne yéen nit ñi man nee leen man yonentub yàlla la bu jëm si ci yéen ñëpp ah? yàlla moom nga xam nag moo moom yi ak suuf yi mu ne kooku laa ilaha illa hu amul benn buur bu ñuy jaamu mu yeyoo jaamu illa huwa ku dul moom mu teg ca ne yuxyi wa dundal mooy rey waxaat ne yaa ayuha nnaasu udkuru nicmat allahi hal min xaaliqin gayru llahi yarzuqukum min alsamaai wal ard laa ilaha hu fa annaa tufakun yéen nit ñi fàttaliku leen xéewalug yàlla ci yéen ndax am na keneen ku leen bind ku dul yàlla lay tontu la mooy déedéet ndax am na ku leen bind ku dul yàlla koo xam ne moo leen di wërsëgal wërsëgal wuy jóge ci kaw asamaan ak wërsëg wuy jóge ci suuf lay tontu la mooy déedéet mu teg ci ne laa ilaha illa hu kon amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul ku dul kooku waxaat ne laa ilaha illa huwa yuxyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikum al mu ne amul kenn kuñ war a jaamu kudul kooku mu yàlla mu ne yuhyi wa yumiit mooy dundal mooy rey te mooy seen boroom mooy boroom seeni baay yu jëkk ya ya ko tàmbale ci seeni maam ba ci seeni baay kooku moo leen moom kon kooku rek moo yeyoo jaamu kon loolu dalay won irtibaatu tawxidi rububiya bi la ilaha illa allah boo xoolee tawxidul uluhiya ànd ak di baatub la ilaha illa allah rek li muy joxe mooy tawxidul uluhiya mooy wari suta jaamu kenn ku dul yàlla da nga gis borom bi tabaraka wa mu ci mu koy dajale lu bare bare bari ci saar wi ñu romboon léegi muy sóoratu naml danañ gis ci biir ba muy leeral lu aju ci tawxidu rububi teewut dugal na ci biir tawxidul uluhiya amman yujibu almutarra ida daahu wa yakshifu sua wa yajcalukum xulafa al ard a ilahum ma allah qalilan ma tadakkaruun mu ne ndax ki jàq ba ne ci jafe-jafe ba tàllal ay loxoom ci ab roqam di ñaan am na keneen ku koy nangul ñaan ku dul yàlla ki musib ci kawam mu xëy xëy ba ma teggi ko ndax am na keneen ku ko teggi ku dul yàlla ah kon a ilahun ma allah ndax kon am na beneen yàlla bu dul yàlla bu ñu war a jaamu tont la mooy déedéet wax na bi yonentam ne ko wa maa arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun waxaat ne innani ana allahu laa ilaha illa ana faabudni wa aqimi salata li dikri kooku boo ko xoolee da ngay gis ne day boole digle ñi jaamu ko boole ko ak laa ilaha illa allah nekke noonu laa ilaha illa huwa wa ala allahi falyatawakkal almuminuun xam nga wakkiirlu ci yàlla ci xeeti jaamu yàlla yi la bokk bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne day war ci nit ki mu defal ko yàlla mu wakkirlu ci yàlla te bañ a wakkirlu ci keneen ndax boo wakkirloo ci keneen yaa ngi def ñaari njuumte yaa ngi koy jaamu te it yaa ngi def lu wérut li ngay def wóorut ndax ku dul yàlla dangay daanu te ku wakkirlu ci lu daanu ah bu daanoo ngeen ànd ngeen àndu daanu moo tax mu ne laa ilaha illa hu wa ala allahi falyatawakkalil muminuun ginnaaw nga xam ne amul benn buur bu yeewee jaamu bu dul moom moom rek mooy yàlla kon nee na ña ko gëm nañ wakiirlu ci moom rabbul mashriq wal maghrib laa ilaha illa hu fattaxidhu wakila amul benn buur bu dul moom kon jël ko mu nekk sa wakil ci ngay wakiirlu ci moom kooku mooy taqaloog tawxidul uluhiya ak laa ilaha illa allah te bul fàtte ne baatub laa ilaha illa allah tawxidu al uluhiya moo ko tax a jóg bu dee tawxidul asmaai wa sifaat aaya yu dul jeex moom itam dañuy lënkaloo ak loolu ak laa ilaha illa allah lu mel ne allahu laa ilaha illa hu lahu l asmaau lxusna amul benn buur bu ñuy jaamu mu yeyoo jaamu wane ne moom mooy ki am tur yu rafet yi moo waxit huwa alladi yusawirukum fi l arxaami kayfa yasha laa ilaha illa hu al azizu al kooku ay tur la yoo xam ne ci tur yi sunu borom tabaraka wa taala la bokk moo wax it huwa allahu alladi la ilaha illa hu almaliku alqudusu alsalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaru almutakabir subhana allahi amma yushrikun huwa allahu alxaaliqu albaariu almusawir lahu alasmaau alxusna yusabixu lahu ma fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim kon loolu lépp ay turi sunu borom tabaraka wa taala yum lim la ubbee ko nag illa hu wan la ne baatub laa ilaha illa allah yemul rek ci ne wenn xeetu tawxid la waaye dafa làmboo mboolem xeeti tawxid yi am muy tawxidu rububia ak tawxidu uluhiya ak tawxidu al asmaai sifaat su fekkee xam na loolu loolu weesu lam nuy gën a jëriñ mooy nu xam ne kon ndekete xam la ilaha illa allah baat boobu li tax sun borom tabaraka wa taala ci coobareem mu def ko muy baat bi nit ki di duggee ci lislaam booy dugg si ñuy wax la ko lekkete boo ko déggee kon dégg nga diine lépp ndekke boo ko déggee sa tawxid wér na ca na gën a wér sa diine dana mën a sax kon loolu moo tax ab woote ab woote bu mu mën a doon su fekkee ci ji lislaam la day moom dafa war a tàmbalee ci xamle tawxid su fekkee ne jàngaloo nit ñi tawxiid yaa nga leen di woo ci leneen moo xam ci ay jikkoy kese la wala lu jëm ci wàllu atte woo la wala lu jëm ci nangam ak nangam waaye tawxiid ja yaa ngi koy woyefal xamal ne boobu woote bi mu daataan juddu la échec woon loolu lu mat a bàyyi xel la kon dañuy wax ne ayu majmuatin tatabanna daawata ila al axlaaq aw al xukum wa naxwi dalika duna taxqiqi xaqi illahi fi tawxidi awalan fa hiya daawatun maktubun alayha bilfashali qabla an tuulad ab woote la boo xam ne ba muy alku ju doogut mboolem kuy woote ku mën a doon da ngay woo nit ñi ñu jëm ci pas-pas fas la ngay woote ba noppi loolu yëmut ci jullit yi rek de waaye ab woote bu nar a sax bu mu mën a doon ña koy woote dañuy woote jëme ci fas ba àggal door a xam yeneen détails yee ca des waaye boo tëbee di détaillé te fekk nit ki xamagul tawxiid góor gi takkub lam ngay wax ak moom ca mbirum lam ba te xamagul lan mooy xaq yàlla ci moom ka yorub cigarette di tux te xamagul at teb laa ilaha illa allah kooku tàmbaleel ci la ëpp importance ci moom door koo xamal la ca des xanaa gisu leen ñeneen ñi ci des nga xam ne bokkuñu jullit yi lu mel ne nasaraan yi courroie bi ngeen di seen loolu lu mu doon du pas-pas pas-pas la ab woote la boo xam ne gis ko ak nangu ko accepté ko maanaam accepté pas-pas la kon ab woote la boo xam ne ñoom ci pas-pas la ñuy jëkk a woote ba noppi door a dugg ci leneen yow jullit bi soo dikkee di woote ci leneen bàyyi fi sa pas-pas léeg-léeg da ngay dégg ñoo xam ne dañ lay wax ne Euh, woote ci pas-pas euh, moom boo ko tàmbalee nit ñi dañuy daal di tàmbali juuyoo di tàqalikoo di def nii te nit ñi dañoo war a bennoo jullit yi dañoo war a nekk benn pour ñu am doole ci kanam seen i noonu jan doole su fekkee la laa ilaha illallah leerul ci bopp yi jan doole la jullit yi am du mën am moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam borom bi sax laay jëkk a wax dafa wax ne wala walaqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llah wajtanibu taaxut loolu mooy itte yonente yi xeet wu ne ne yónni naa ca yonent ne leen jaamu leen yàlla te bàyyi leneen lu dul yàlla loolu moo doon it ittey yonent yi am na yonent yoo xam ne dikk nañ di woote ci loolu ba dee fekk leen ci ñu dee wax ne innahum kaanu ida qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun kooku day wane ne ñooñu bu ñuy woote ci lan lañuy tàmbale tàmbalee laa ilaha illa allah suñ leen waxee laa ilaha illa allah ñuy rëy rëylu kon nit ki bala ngaa jàll ak moom ci lenn war ngaa jaar ak moom ci laa ilaha boo xam dana ko nangoom déet su ko nangoo nga door a jàll ak moom ci leneen bokk na ci dalil yi gën a wér tey leeral loolu moo di yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu yónnee Muaaz ibni Jabal radiallahu taala anhu ila al yaman daf ne ko fal yakun awala ma tadcuhum ilayhi wala awalu ma tadcuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah boo àggee la nga leen di jëkk woo na nekk la ilaha illa allah muhammadu rasulullah su fekkee am nañ tawxid ba noppi mu teg ca ne ko kon na nga leen digal julli soo noppee nga digal leen asak soo nga digal leen koor noonu la toftalee lislaam ja a ah, nan la ñuy tàmbalee nag ci ci tawxid la ci jiitu mooy taallumu tawxid wa fahmuhu wa tatbiqu des ko war a jàng ba xam ko lii aw yoon la ci jàng ko insha allah jëfandikoo ko itam nag gannaaw boo ko téwree ba àggal da war a jël pratique bi ci boppam boo xamee tawxid di ko dund moo tax albuxaari rahimahullah ci fiqam bu xóot dafa wax ne baabun al ilmu qabla al qawli wal amal li qawlihi taala faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbik noonu la ko waxee ci kitaabul ilm ci saxiixam bi mu ne bunta ngi bunt bi ci lu muy wax mu ne xam-xam daa war a jiitu wax ak jëf mu ne ndax borom bi daf ne lem xamal annahu la ilaha illa xamal ne la ilaha illa ñaareelu jéego ba ci yoonu tàmbalee ci tawxid moo di adda ji woote ci tawxid kooka nag bul fàtte ne moo doon ittey yonente ak bépp borom xam-xam bu baax boo xam ne mas naa ñëw seen gannaaw ci woote ci tawxid moo jëkka doon sa itte ba mu tasaaroo ba dugg ci bopp yi ba sax ci bañ di ko dund détails yi ci des door a ñëw ñetteelu jéego ba moo di mahabatu ahli tawxid wa zawdi anhum wa muwalaatuhum walxadar min albaraati minhum sopp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir tawxid munta ñàkk ci ki nga xam ne ci waa tawxid la bokk faw nga bëgg leen faw nga défendre leen bu musiba jëmee ci seen kaw yëg ne ci sa kaw la jëm faaw nga mbokkoo leen def leen ñuy say bokk te wattandikoo set ci ñoom bul wax mukk mukk mukk ne nangam ak nangam ak nangam ci ñoo xam ne leer na la ne ci waa tawxid lañ bokk moo xam dañoo def ab te wala dañoo def ab nangam nga ne ñooñu bokkuma ci ñoom bokkuñu ci man déedéet wattul loolu baaxul ku nekk ci tawxid du set ci koo xam ne ci tawxid la nekk loolu luñ tere ba tey bu'du a'daai tawxid ba'da kashfihim wa ma'rifatihim qaala taala wa kadalika nufassilu alayaati wa litastabina sabilu almujrimin bañ nooni tawxid ci sa tàmbalee ci tawxid ci la bokk gannaaw boo ko xamee gannaaw boo xamee nag fexe nga ba xam leen ndax borom bi tabaraka wa taala moo ne tàqaleeg aaya yi muy def moom yàlla aaya alquran yeeg xadis yi bokk na ci li muy jëriñ moo di ngir ñu nekk ci dëgg leer ñu nekk ci caaxaan leer wali tastabiina sabilul mujrimin yoonu tooñkat yi ñu dëng ñi jubul seenu yoon bu leeree yoon ñi nekk ci dëgg dal di leer bokk na ci sa tàmbalee ci tawxid rabtu qadayana almuasira biltawxid wa xaasatan ma yataallaqu bilwalai walbara wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum sunu yi nuy dund ci ay jafe-jafe wala ay yomb-yomb wala nu mën a doxe war nañ koo jiima dëppale ak sun tawxid ak wéetal yàlla rawatina nag lu aju ci wàllu jëflente xam ñan ñooy sa péete lu mënta ñàkk la jullit bi péete woo gim am digganteem ak jullit munu koo am digganteem ak kudul jullit bokk na ci liy metti lool lu bare bari da ngay dégg dangay gis ci lenn ci jullit yi ak doyadal mbirum mbirum péete da gis ñu nekkul ci seen diine rawatina ñi gëm wàllu croix nga xam ne pas-pas bu xotti alquran lañ gëm dangay dégg jullit yi di leen lenn ci jullit yi di leen tudde sun mbokk yi ñenn ñi naan sun xarit yi di leen indil ay ay waxiin yoo xam ne tagg leen lay feese dell àgg ci sax yónni seeni doom yebal leen ñu dem ci seeni daara di fa jànge foofu les mën a yem foofu les mën a yem xew-xew yi xew ci jamono ji ba nit ñi di ci sonn di ci coow di ci coow la ma jàpp mooy ña ca école boobee tere doomi jullit ja ñëw muuru di fa jàng si ñu tere ko mu muuru mu bañ ñu génne ko ñooña leer nañ ñoom ka leerut mooy jullit ka leerut mooy jullit man dey su ma ubbi woon saab école di fa jàngale ku xëy si takk ab croix bu ne wàng ci sab dënn boo xëy si waatee ma dàq la kon ñooña lañu nekk nekk wàccuñu seenu yoon mbir mi na meloon rek la mel ba tey yow jullit kay yaa wàcc saw yoon ba noppi yëgoo ne wàcc nga mbokki jullit yi mbooloo moo xam ne nee ngeen jullit yi ñoo fa mat limu juróom-ñeent fukk ak juróom ci téeméer bu nekk ah su fa nit ñëwee ubbi fa daaraam wala ay daara yu dul jeex ñooñu daara yi ngir mu man faa sax ñan lañuy ñuy séentu ñu dugg fa jullit ya jullit ya la ñuy ñu dugg fa su fa jullit ya dugalut seeni doom daara ya nu ñuy def dañuy tëj kon daara yooyu jullit yi ñoo leen ubbi ñoo fa yebal seeni doom li feeg delsi wuñ seen lislaam ba xam seen péete xam li leen seen diine digal xam lim leen tere lu mel noonu di leen dal lu mel noonu di leen dal ñoo wàcc seen waaso dañuy wax na ku wàcc saw ànd ànd boo dem fekk boroom toog ca kon jullit yi nañ jàngi seen diine nañ jàngi seen alquran loolu moom la leen seen borom tabaraka wa taala digal juróom-benneelu tàmbalee ci tawxid jamul ummati ala asaasi tawxid xeetu lislaam suñ leen bëggee boole ci lan lañ leen di boole ci tawxid tawxid rek moo leen mën a boole yàlla nee na waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci buumu yàlla gi buumu yàlla mooy lan mooy buum gu dëgër gañ la waxoon ci gannaaw de fa man yakfur bi taaxooti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati lwusqa ku weddi lépp luy woote ku ko jaamu te du yàlla ba noppi gëm yàlla nee na kookaa jàpp ci buumug sun borom tabaraka wa taala gu dëgër gi loolu nag ku ci jàpp doo tàqalikoo doo tàqalikoo mukk léeg-léeg nga dégg ci lenn ci mbokk yi xëy na lu baax lañ bëgg aw yiw lañ yéene dañu dem ba mel ni lislaam lii itteem rek mooy na mbooloo mi bari ak nuñ baree rek baax na nuñ baree rek baax na ku ci gën a dajale mbooloo mu bari jàpp nga ne yow yaa jaar ci yoonu lislaam yi nga xam ne moom mooy wujub wa qualité moo ko gën a itteel quantité maanaam al kayf la gën a ittewoo ci kam melokaani nit ña moo ko gën a itteel seeni seen bariwaay seenub lim bari gi te fekk selluñu xamee wuñ àq yàlla ak àqi doomu aadama kooku póoge la ñuy doon boo xam ne lu ñëw rek yóbbu leen ñii nga xam ne dañoo jàpp ne dajale gi aajowut muy ami charte na mbooloo mi dajaloo rek nuñ baree baax na ñoo ñu joxoon naa leen ci misaal ci koo xam ne waxtu julli dafa jot mbooloo ma nekk ca marché bu mu dugg fa rek ne leen kaay leen ñëw leen ñëw leen julli gaa yi ne ah ñii ne man jàppaguma ñii ne man cangaay damaa war mu ne déedéet loolu du problème li am solo mooy na jàkka ji fees rek ah mbooloo ma tëbi foofa ñii yor seen janaaba ñii yor seen njàpp mu toj ñëpp dajaloo ci biir jàkka ji ñu taxawal daal di julli sarax sarax sëlmal est ce que am nañ julli amuñu julli li wér mooy amuñu julli kon li am mooy mbooloo mu bari mi mbooloo mu sell mee ko gën mbooloo mu sell mi moo ko gën kon naa dajale mbooloo mu bari kay mooy nekk ci ay mooy yàllaam kay shirk nekk ci ak bokkaaleem kenn du ko wax dara ndax soo ko waxee dara mën naa dem te kon mbooloo mi wàññiku wala xuloo mën naa am diggante mbooloo mi ñuy juyoo kon nañ teg tawxid fële yooyu yépp nax suñ bopp la li wér mooy su fekkee ne responsabilité bi jullit war a yanu fas nañ ko yéenee yanu te caaxanuñ ci loolu kooku munta ñàkk ñu wéral tawxiid ci boppi doomu aadama yi loolu moo war a jiitu ñu bari dañuy wax ne problème yi nuy dund tax na problème mu tawxid mën nañ ko teg fële ba pare ci jullit yi àndandoo régler problème yi buñ noppee wëlbatiku euh, loolu du wéy te xamuñu ne jafe-jafe yooyu munta régler wu ci lu dul tawxid ñàkk tawxid moo waral jafe-jafe yi borom bi tabaraka wa taala moo digee moo digee ne su fekkee ne jaar ngeen ci yoon bu ngeen war a jaar moom moo leen di indil dund gu yomb ci àdduna ak ci alaxira ah yow dig bi mu la jaaroo ci ba àggal defee ne mën ngaa fexe ba sa dund yomb ci àdduna ak alaxira munta nekk munta nekk li ñuy dund lum jafe-jafe jafe-jafe mooy lin war a dund nun fi toll ndax foofu lan tolloole suñu bopp ginnaaw li nga xam ne mooy cërub yàlla ci yow nangoo goo ko jox ba tey xàmmee ko ak cërub nit ci yow kon loo tegu ci lu diis lu nekk loo mën a jàpp ne mooy sabab sa it xamal ne loolu moo ci jiitu kon daal xeet wi mbiram du jub du tegu ci siraatul mustaqim lu dul dafa dellu ci la nga xam ne xeet wu jëkk wa àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñam yaroon muy asalafu saalix ñooña rekk ca lañ mën a dellu tabaxaat ci xeet wi ñu dund seenug dund mbir mi door a mën a baax adduna ak alaxira kon lan moo tax walla mënumaa xam sax gan dajaloo la la ñuy bëgg su fekkee ne dajaloo gi àndul ak tawxid ci lan lu ñuy war a boole su fekkee bokk nu nu nuy gisee sax yàlla bokk ñu nu ñuy jaamoo yàlla ah waaye suñu waxee rek nga ne nun ñëpp noo bokk di julli jëm xibla alxuraan ji jenn jee yonent bi benn bi waa alxu yàlla jenn jee yàlla jooji nga ne jenn jee ndax yéen a bokk sax nu ngeen ko fase ndax su fitna dikkee jékki-jékki dal ci seen kaw yéen ñëpp yéen a bokk benn taxawaay wala ñenn ñi dañuy def bëreet ñiy dellu ci jabar yi ñee dellu ci xërëm yi ñiy dellu ci su fitna dikkee ndax yéen a bokk dellu ci yàlla moomu ngeen ne jee alxuraan mii ngeen ne jenn jee ndax su ngeen demee ba jafe-jafe da ngeen gëm ne su ngeen delloo ci alxuraan jafe bi dañ déedéet da nga gis kii jëm penk kii jëm sow kii jëm ci lëm gëm kenn ku nekk delluwaat ci sa baaxi maam su ko defee bu ëllëgee nag ñu bokk daje ne nun ñëpp noo bokk nekk ci jenn alxuraan ji fekk alxuraan ji ci boppam li wér mooy ci tur wi bokk gi nekk mën naa nekk waaye bokk gi dund ko ba tey des na kon daal li ñu jublu ci jooju wax jépp moo di annahu la budda an tubna addaawaatu waltajammuaatu ala usulin wa thawaabita munbasiqatin min aqidati altawxid multazimatin bi manhaji alsalaf min ahli sunnati waljamaa baidatin an albidaci almuxdasa والتنازلات المخزية وتمييع قضايا العقيدة بحجة جمع الكلمة ووحدة الصف والمصلحة العامة فلا يمكن توحيد الكلمة بدون كلمة التوحيد loolu la ñuy mujje moo di bépp mbooloo wala am ndaje mu mën a doon war nañ koo tabax ci ay birig yu dëgër yoo xam ne ci pas-pasub tawxid lay jóge teg ko nag ci méthode bi nga xam ne asalafu saalix manhaj bi nga xam ne asalafu saalix ak ñi leen topp ca lañ jaar fexe ba sori lool lépp loo xam ne bidaa la sori lool dellu gannaaw yi ci diine ak nangu naa la wàccal nangam ngir bëgg nu daje ci nàngam wattandiku yooyu wattandiku doyadal gi lu aju ci wàllu pas-pas ngir bëgg a wax na dangaa bëgg a dajale mbooloo mi wala nga bëgg a wax ne intérêt général moo tax nga ngay def nangam ak nangam ndax kat kenn mënta dajale nit ñi boole seen kàddu mu nekk genn lu ludul su fekkee ne kalimatu tawxid dañ ko am muy baatu bu wéetal sun borom tabaraka wa taala kon loolu lay mujje insha allahu taala waxtu wi defe naa ne jege na wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bismillahi arrahmani arrahim <coughs> eh, mi mbokk day laaj teg dara ci kaw alquranil karim moo xam ab téere la wala leneen nga jël ko teg ko ci kaw mushaf bi ndax loolu dagan na wala wala daganul boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy bind ci aadabul quran sib nañ loolu tere nañ ko ndax alquranul karim comme ni mu dikkee ci ay riwaayaat dañoo wax ne yaalu wala yu'la alayhi maanaam day kawet te dara du ko féete kaw ñëw ne it wa kalimatullahi hiya al ulya kaddug yàlla moo féete kaw te ay alquranul karim waxi sunu borom tabaraka wa taala kon warta am lenn lu ko féete kaw bokk na ci teggini alquran al karim yi jullit bi war a tegginoo diggante ak moom su koy teg mu dend ak yeneen i téere mu fexe ba téere alquran mooy tege ci kaw téere yi ca des waaye du jël téere yi ca des teg ko ci kaw alquran al karim wallahu taala alam kii mu ne atteb koo xam ne day wax laa ilaha waaye nag du julli du woor boroom xam-xami lislaam dëppoo nañ ci ki nga xam ne du def yi war su fekkee daa weddi war ga xamee loolu bu baax su fekkee defu ko waaye dafa weddi ne dafa war weddi na ne dafa war ci warut ci xeet wi la wax wala warut ci moom lu mu ci wax boroom xam-xami lislaam dëppoo nañ ci ne kooka génn na lislaam su fekkee duggoon na ca su fekkee nag daf koo deful waaye weddiwu ko dafa téye aw làmmiñam boroom xam-xami lislaam dañ ne kooku bu fekkee sharia taxaw dañ koy atte dañ ko yóbbu ci qaadi shar'i mu jekki ba waxtu julli jot ñu ne ko ah waxtu wi de jot na ndax da nga julli su ne déedéet ñu bàyyi ko ba waxtu wi cate bay bëgg a jeex ñu laajaat ko te suñ koy laaj foofu dañoo wax ne qaadi ji muy kii atte na indi ñi nga xam ne ñoo koy rey ñu taxaw parce que dañ ko nar a atte atte bu rey dañ ne ñooñu koy rey dañuy taxaw yor jaas yi ñu laajaat ko ndax da julli su waxee ne dafa bañ nag du julli ba waxtu wi jeex ñu ne kooku dañ koy rey waaye rey boobu nag li ko wutale ak rey ba ca des ci waxee lenn ci borom xam-xam moo di reyuñu ko ci kaw ne bi yéefar la waaye def na bàkkaar boo xam ne daal ab atteem mooy rey suñ ko reyee ba àggal la ko wutale ku jëkk ka moo di danañu ko suul ci armeeli jullit yi danañ ko jullee danañ ko sang danañ ko sàng ndax atteb jullit lañ koy jox su fekkee am nay mbokk yoo xam ne ay jullit la it danañ ko donn kooku mooy ki nga xam ne dañ ko rey ci kaw julli ci ne weddi wut war goo xam ne julli war na ko waaye dafa ñàkk a julli ngir ak tàyyeelam wala ngir leneen waaye lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne loolu borom xam-xami fiq yi dañ ko teg ci kaw image waaye doonut lu mën a nekk ñu ne ku gëm julli wala genn jaamu yàlla gu mën a doon su fekkee gëm na ne war na kooku du ca faatu munta dem a dem ba àgg ci taxaw ne du ko def ci kaw ne daa tàyyeel rek moo tee mu def ko jaasi yi taxaw di melax mu leer ko ne xaadi jii taxaw su fekkee ne defut li mu koy wax dañ koy rey ba noppi mu continuer lànk bañ koo def ñu ne loolu dañ koo wax rek ci xel waaye doonut loo xam ne lu mën a nekk la kon li gën a wér mooy su fekkee nag àgg na foofu dañuy xam ne kon daa di julli loolu mooy li gën a wér moo tax loolu masalam fiq la moo xam ne ba léegi ci li ñuy nettali ci taarixu muy histoire wu atte ci lislaam gisaguñ koo xam ne gisaguñ koo xam ne dañ koo atte ci kaw ci kaw loolu atte boo xam ne bu tëddee noonu la nekkee noonu li ñuy wax ci julli moom la ñuy wax ci koor benn la am na fii beneen laaj boo xam ne boroom su fekkee mën na ko leeral ci li mu wax gis naa fii dal muy tudd nasaraan ak yu mel noonu waaye li mu bëgg a wax dëgg-dëgg xaw ma ko waaw hmm. bu fekkee bind mbindaafon yi la li tax yàlla bind junne ak nit leeral na ko daf ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun binduma jinne ak nit lu dul ñi jaamuma ma kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak baaxam lépp du tax ñu ne lépp luñ bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo gën ci doomu aadama yi loolu amul benn werante ci borom xam-xami lislaam waaye nag la tax ñu bind bindeef yi <coughs> ñi nekk ay mukallaf muy jinne ak nit li tax ñu bind leen moo di jaamu seen borom képp moo tax ñu bind leen waaye amul beneen illa boo xam ne moo tax ki ñu yónni ci ñoom nag bu dee xeetu lislaam bii yàlla dogal nu dajeeg moom noonu kañ yónni ci yoom moo di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci li yàlla wàcce ci moom seenu topp ko aku sellal ci la ñuy xettali koo seenu moy ko aku ñàkk a sellal ci la leen alkante di dalale dale yàlla nañ ci yàlla musal gëm yàlla rek bañ a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku gannaaw bi nga xamee ne yàlla yónni na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënatu la nekk képp koo xam ne da wax ne da gëm yàlla rek te gëmoo alquran gëmoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku doo ab jullit ci jullit yi munoo nekk ab jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadis boo xam ne Buxaari moo ko solo ne wala walladi nafsi bi yadi laa yasmau bii laa yasmau bii yahudiyun wala nasraniyun thumma laa yuminu bima jitu bihi illa kaana min ashaabi nnaar dafa giñ moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne amul ab yahud wala ab nasraan te ñooñu ñooy ñi gën a jege jullit ndax ñoo gëm téere mu ne amul ci ñoom kenn koo xam ne dana dégg dana ma dégg dégg saa boote te gëmuma lu dul moom dana bokk ci waa sawara kon amul kenn koo xam ne mën naa sukkandiku ci wax ne dafa gëm yàlla rek ngir ñu ne loolu doy na gannaaw boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na te la ko jiitu woon sax mënul nekk ndax ku gëm yàlla ku nekk mas nañ la cee booleloo ab yonent ndax ab yonent moo la tegtal nga gëm yàlla kon da gëm yàlla akub yonent ci jamono yu ne bi lislaam dikkee nag li mu gënee ñépp moo di dañ laa gëmloo yàlla ba noppi gëmloo la mboolem yonent yi weesu woon da ngay gëm isa gëm Muusa gëm Daawuda gëm Suleymaan gëm bépp yonent boo xam ne yàlla mas na ko yónni boo leen tuddee da ngay julli ci ñoom wax alayhim salaatu wassalaam di leen bëgg di leen sob ndax jullit bi dafa gëm ne ku weddi benn yonent ci ñoom weddi nga alxuraan te ku weddi alxuraan nekkatu ab jullit ndax alxuraan moo la leen gëmloo kon jullit bi ngir gëmam mat moom faw mu gëm yàlla faw mu gëm mboolem yonent yi kon ñi nga xam ne dañuy wax ay tolérance ak diggante diine yi ak diine yi ka gëm sab yonent kay foofa la mën a yem gëmal ab yonentam soo gëmee ab yonentam rek seen mbir day daal di nekk benn moo tax dañuy wax benn boroom xam-xam bu mag boo xam ne da daan di jëfandikoo xel Cheikh Mouhamed Abdou dañ ko mas a invité ci lenn ci réewi tubaab yi ñu boole koo labbe bu mag boo xam ne eh, lañ doon def mooy luy nurook werante ci mbooloo labbe ba daal di koy wax ne ko yéen dey maanduwu leen mu ne ko lu tax mu ne bi ngeen daganalee bi ngeen daganalee jullit bu góor takk nasaraan bu jigéen waroon ngeen a daganal nasaraan bu góor takk jullit bu jigéen mu ne ko nun dey loolu yi nu daganal sax mënoon nanu caa bañ a fekk sun diine dafa maandu moo tax nu daganal loolu nun danoo gëm seenub yonent kaay leen gëm sunub yonent su ngeen ko gëmee rek sooy boo ngeen ñëw nu may leen ci sunuy doom ak sunuy rakk su ngeen gëmee sunub yonent bu dee ci sunuy jigéen ngeen bëgg su ngeen dikkee rek nu may leen ci loola mooy dëgg kon lislaam ci jëm boppam moom dañ laa gëmloo yàlla gëmloo la ab yonent waaye gëm yàlla ket boo ci yemee kooka do sëg njullit bu sotti du mat jullit bi jaadu na ci moom mu jàng ci alquran fexe ba jàng ko njàngin wu wér kem kàttanam fexe ba gën gaa néew na am ci alquranul karim la mu jullee na am ci alquranul karim la mu jullee jàng tawxid nag moom fondement la boo xam ne mëneesu koo bañ a def mëneesu koo neenal faw farata la ci moom ndax dañ laa wax ni nit ki fi muy duggee ci diine rek fi muy duggee ci lislaam su fekkee daa tuub foofa lañ ko war a jàngale laa ilaha illallah ba mu xam ko te loolu mooy tawxid su ko defee bu continuer di jàng alxuraan na ko boole itam ak di jàng tawxid ndax yaar yëpp mën nañoo ànd alxuraan daal farata la mu jàng ci ba xam lu mu mën a jullee tawxid farata la mu jàng ci ba xam lu koy tee bokkaale ndax su bokkaale ba noppi di jaamu yàlla jaamu yàlla day yàqu wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin loolu borom bi tabaraka wa taala wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko bu fekkee ne bokkaale nga li nga defoon day yàqu kon faaw tawxid warees na koo xam ba àggal door a xuus ci biir jaamu yàlla yi lu ko may da jaamu yàlla ba noppi say jaamu yàlla di yàqu te loolu l'islam bëggalu la ko kon jullit bi na seet nu muy tële programme am ba yi munta ñàkk nga xam ne moom la ñu tudde fardu ayn muy faratay jëmm kenn ku nekk war koo xam mu tàmbalee ci yooyu na jàng ci alquran ba am ci lum jullee na jàng ci tawxid ba xam aq yàlla ak xaq yonentam mucc ci bokkaale su ko defee nag di dolliku rek di wéy ci fiq ak alquran ak bépp xam-xam boo xam ne ab jullit aajo woon na ko ngir mën a defar diineem wallahu taala alam football ak leneen lu dul moom sport ci lislaam e, dafa am jubluwaay ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam amoon na yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana digle ñu jàngal jullit yi sànni ci ay jamonoom ak féey ak ngawar maanaam di war ay fas di dawal aki gëléem ci yooyu jamono yooyu lenn lu ci nekk sport la boo xam ne lañ ci jublu woon leer na nañ ci seeni bopp moo di jihad fi sabilillah yooyu jamono jihad fi sabilillah faw nga faw nga mën a war lañuy war doo daanu faw nga mën a sànni ba boo sànneeg fett mu jub faw itam saw yaram dëgër ba koo jaamaar lool du la gaaw a not wala du la mën a not kon loolu la lislaam jublu ci sport kon daal wér-gi-yaram jubluwaay la boo xam ne bu mucc la ci sport moo xam nag wér-gi-yaram googu bu sottee ngir jihaad fi sabilillahi moo ko tax a jóg wala ngir jaamu yàlla moo ko tax a jóg ndax it jullit bi dem ba ne nun kat suñ jamono jihaad fi sabilillahi taxawut ndax am na lenn ci ay sartam yu manki moo tax taxawut lool du tax mu ne kon aaje wootuma wér yaram dafa koy aajo woon wér yaram ndax danga bëgga am wér yaram goo xam ne danga nga mën a jaamu yàlla danga nga mën a dox ay jéego ngir fàggandiku loo xam ne ci ngay dund yaag sa njaboot yooyu yëpp wér yaram la laaj ak yeneen ak yeneen kon bu fekkee ne am na yëngatu yoo xam ne yooy def la ngir sa wér gu yaram loolu lislaam du ko tere waaye la lislaam di tere nag mooy ngay def yëngatu yoo xam ne day ànd ak yu muy tere football wala sport bu mu mën a doon su fekkee ne ànd naag wuññi awra wuññi awra moom daa xaraam ci lislaam awray góor mooy la tàmbalee ca wóom ba ca jumbux ba lu feeñ foofu rek def na lu xaraam du dagan nit muy daje ñeneen ñoo xam ne dañoo wuññi seeni awra ñoom mu di ko xool su ko wuññiwul woon moom it du dagan muy xool awra yi ñeneen ña ca des ñi wuññi seeni awra kon loolu leer nañ du dagan itam sport boobu dem bay yàq sa waxtu maanaam am na waxtu wu far woo xam ne mënoon nga cee def lu la jariñ lool ci sa wàllu diine ci wàllu jàng ak wàllu xam ak wàllu jaamu yàlla wàllu itte yoo xam ne yu aju ci sa wàllu àdduna la nga sànk ko di ko jeexal ci ab terrain football te mënoon a am yëngatu yoo xam ne moom rek ngay def bu fekkee sa wér-gi-yaram nga ci jublu ah kon bu boobaa yaa ngay def loo xam ne juuyoo na ak njàngalee lislaam njàngalee lislaam dafa jàngal jullit bi mu fonk waxtu diggante bi nga mën a sport ci bis ngir am ci sa wér yaram ñàq dem sangu ji dellu ci sab liggéey diggante bu gàtt la am maa nag su fekkee nag sport bi dafa dem a dem nag ba nekk leneen nag nga xam ne dafa mujj yëmatut ci ne nit ki day wut rek lu mu wute wér-gi-yaram waaye dañoo dem ba jàpp ne méthode la ci daawa kooku damay wax ne mbokk yi njuumte la lu daawa de jëmmi sport ci boppam mënta nekk benn méthode ci méthode yi ñuy jëfandikoo ngir daawa ilallah kooku ñu xamandoo ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam sport yi amoon ca nam doon doone méthode ci daawa maanaam méthode la woon ci jihad fi sabilillah ngir dugal ay nit waaye nag jàpp ne da ngay nekk ca biir terrain ba pour bëgg a daawa ña ngay dajeel ca terrain ba ngeen di football moo tax nga di ko def déedéet ndaxte mbir mi àggut foofu nit ñi am na foo leen mën a woo daje fa ñoom daawa leen ci lu dul ca terrain ba te itam ndax ay résultat amagun na ñoo xam ne dañ ne ñii day dañoo nekkul woon ci lislaam léegi tuub nañ ca football ba lañ tuube wala ñii dañoo nekkul woon ci sunna léegi dikk nañ ci sunna te ca football ba lañ dikkee ci sunna ndax amagul ngeen ci ab lim bu bari defe naa bareegul ñaareel bi bu leen fàtte ne xeet yi lépp loo xam ne xëccoone ci biir kii bëgg a gañe kii bëgg a gañe am na couleur buy ne ci biir tuuti boo xam ne day couleur bi carte yor muy kenn ku ne dangay ngay daal di fanatique ci kuréel ba nga bokk loola dalay jaral lu nekk ba boo wattuwul sax danga fàtte sunna bi nga nekkoon ak li nga newoon métatu daawala boo wattu mën na laa indil sax fitna hmm? loolee mu wax ci carte li yasuddakum an sabilillah ak itam adawa wal baxda boobu muy andi noonoo <coughs> mën naa dem ba indi ko ci biir loolu ci fan yu yàggul rek defe naa ne ay mbir xew na ci biir football bi ah ñàkkut yu xew ay mbokk yoo xam ne dem nañ ba euh, am lu xew ci biir terrain ba loo xam ne defe naa ne xeeti jëflante ci wàllu loxo du wàllu tànk waaye jëflante ci wàllu loxo xew na fa kon loolu ci jëmmi boppam war naa leeral mbokk yi ñu delloo si waat seen xel ci mbir mu demee noonu ñu soppiwaat aw doxaliin ah, dañ koo bëgg a jëfandikoo ngir xamante maa ngi yëgal ne mbokk yi mooy yiñ mën a jëfandikoo ngir xamante bari na bari na lool yoo xam ne bokkul ak football daje ci jàngukaay yi xamantewukaay la daje ci jàkka yi ak jumaa yi su fekkee doxe ne na mu war a doxe xamu xamantewukaay la def ay ndaje yu mel nii bokk toog waxtaan daje ak it yeneen daje yu demewul nii bokk daje invité ay nit ñi bokk toog kenn ku nekk xamle sa bopp maay diw doomi diw béréb sangam lay liggéeyee say mbokki jullit xamal la loolu mooy li taarafoo li sun borom tabaraka wa taala wax hmm? waaye bu fekkee xamante gi sa terrain ba rek la mën a amee kon kooku su fekkee loolu kon loolu du doon jubluwaay bi nga xam ne bu mën a bu mën a leer la maanaam jëmmi xamante rek moom bu ci desee kooku loolu jëru ko jëru ko kon daal ci gàttal sport li résumé wax ji yëpp mooy sport ci boppam l'islam terewu ko mutlaqan waaye daganalu ko itam mutlaqan néewul lépp dagan na léewul lépp xaram na la koy xaraamal ay yëf yuy nekk ci biir lay doon yoo xam ne nit ñaa koy jëfandikoo wala ay jubluwaay yoo xam ne jublu nañ ko la koy tax a daganal itam jubluwaay bu baax ba lay doon ak it jëfin woo xam ne ci yoon bu baax ci la tegu jàpp naa n yeneen sport yi ñu mën a jëfandikoo yoo xam ne amut ay tere yu ca nekk te amul ay fitna yu ci mën a juddoo bari na lool kenn ku wéet moom dong sol yéreem yam war a sol dem ba ci tefes wala mu dem fi béréb daw lam soxlaa daw delluwaat këram loolu tabarkàlla baax na te amul kenn koy xëccool bay xeex lislaam day dafa bëgg bépp jullit bu mu mën a doon bépp jullit mu doon ci biir mboot askan wi mu nekk muy société bi na doon koo xam ne li muy lég liggéey lu amal njariñ nit ñi nay def loo xam ne xeet wi daf ci mën a jariñu diine ji mën cee jariñu xam naa ne ki nga xam ne dafa jóg jàng métier mu mën a doon ba man ko na doonub maçon di tabax kenn ku nekk xam na ne kii de li muy def moom xeet wi gis nañ ko ay néeg lay defar xeet wi di dugg ci biir di ci fatu ak seeni njaboot loolu leer na nañ ñu xam ko ki nga xam ne dafa jóg di jàngale ak a yar kooku li muy def leer na nañ ci askan wi jubbanti ay doomaa dama lay def di leen teg ci aw yoon ba nit ñi mën a jaar ci siraatul mustaqim xeet wi mën a mucc seen i alal mën a mucc seen i deret mën a mucc kooku li muy def leer na nañ lu xeet wi jëriñoo la l'islam nag prévoirul am nit koo xam ne day def li may def su ma ci mënee dund rek baax na dana tax nga mën a jàpp loolu mu nekk sa liggéey jëm bi football ci boppam amut njariñ loo xam ne daf koy jural xeetu lislaam ci boppam moo xam ne dañ koy gis boo xam ne daf leen koy indil kon kooku doonut loo xam ne métier la moo xam ne doomu aadama ji mën na koo jël def ko mu nekk ab liggéeyam boo xam ne daf koy def la muy am mu di ko ca am te it na xamaale ne loolu ci boppam garanti wut wéyut diggante bi mu koy man lu gàtt gàtt la su jàngiwut lu mu liggéeyee su waxtu wa jeexee lu bon a bon mën na koo dal moo di mën naa dem ba fekk amul métier amul lu mu liggéeyee te ña ko doon soxla di ko jël di ko fay xam nañ ne amatul njariñ ñu sànni ko ci waxtu woo xam ne fekk na aajo wowoon na lool lum dunde aajo wowoon na lool lum yore kër kon loolu moo tax lislaam yu mel noonu liggéey yu mel noonu waaru ko pour jox ko ab jullit mu di ko saxoo di ko liggéeyo wallahu taala alam waaw qissa bi mu wax ne dañ ciy teg tegtaloo ngir wone ne pooju góor du awra mu di yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toogoon ñu wax ne poojam dafa feeñ ñu ne Aboubacar dugg mu bàyyi ko noonu Omar dugg mu bàyyi ko noonu bi Ousmane duggee mu daal di delloowaat yéeréem daal di wax ne ndax duma kersawu ci koo xam ne malaaka yi dañ ko rus ndax duma kersawu ci koo xam ne malaaka yi dañ ko rus loolu lu wér la sax la jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li ci aaja seet gendiku bi ci nekk moo di li ñu wax ne pooj am na benn riwaaya boo xam ne faxis la wax faxis mooy pooj am beneen riwaaya boo xam ne saaq la wax maanaam yeel moo tax boroom xam-xam yi ñu ne foofu arab léeg-léeg day wax pooj fekk la mu ci jublu mooy yeel ñu ne loolu mooy dëppoo ak li nga xam ne moom moo wér ci beneen xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee tamit mi ngi ci sunan abi daawud ne awray góor mooy li tàmbalee ci wóomam ba ci jumbu xam ñu ne ko loolu rek mooy dëppam kon ñi wax pooj lañ ci jublu mooy yeel nit ki nag ab yeelam mën na koo feeñal dagan na ci wàllu sharia waaye nag am na ñu muy rus ñoo xam ne it nag ay yeelam wogu ba ca kaw ñu teew mu wog ay yeelam ba ca kaw it loolu ba tey rus na ko kooku moom ci aada ci aada am na ñoo xam ne rus ngaa toog ci seen kanam wog say yeel ba ci say wóom ah kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mel noonu la jëfe woon ci digganteem ak Ousmane ibnu Affan waaye la feeñoon ci moom du du ab lupp loolu am na lenn ci borom xam-xam yoo xam ne noonu lañ ko firee te loolu mooy li gën a dëgër bu fekkee seetlu nga ko ci wàllu xam-xam am na ñoo xam ne it dañ ne xëy na su fekkee ne loolu wér na ne lupp la ci boppam kon loolu doy la jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral awray góor lu jiitu muy wàcc ci moom ne awray góor fii la tàmbalee ba yam fii ñu wax ne kon loola daganoon na gannaaw boo xamee ne wàcc na nag daganatul gannaaw bi am na ñoo xam ne it waxin woowu la ñu wax ñaar yëpp lu mu ci mën a xew rek la wér mooy la sax ci xadis ba mu di awray góor ci wóom la tàmbalee ba ci jumbux wallahu aalam waaw waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yoroon sikkim la sikkim bu mag sax ni ko sun borom tabaraka wa eh, bindee mu bokk ci xeet wu bari karaw taxul ñi tuxale ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne mas naa wat ab sikkimam ci yenn jamono wala mu wàññi ci lenn sax loolu saxul jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon boo demee ci téere yi ñu tudde kutubu shamail muy téere yi melal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañuy wax ne sikkim bu mag a mag la yoroon te itam demoon na ba tàmbali di am ay kawar yu weex jamono yi nga xamee ne mu ngi fi jóge ci àdduna di dellu ca rafiqul ala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne da génn génne lislaam waaye lu xaraam la lislaam daf koo xaraamal ci moom sëy ba ci boppam doonut sëyub lislaam doom ya duñu doomi lislaam lu xaraam la saxo di ko def guddi ak bëccëg waaye waxu ñu ne ab yéefar la wallahu aalam ala kulli xaal dindi gi foto yi ñu wekk ci ne bi loola moo jub ah ki ko ko tere nag su fekkee ne dafa doon koo xam ne ku ko mën a not la ba lim ko tere amu ci pexe mu ko defee ah xanaa mu continuer ci loolu rek te xam ne léegi lu lu daganut ci la continuer waaye loolu moom mooy la wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam wattandiku la na lool photo rawatina photo boo xam ne jëmmi doom jëmmi mbindeef la moo xam ne doomu aadama la wala muy eh, mala kooku tere na ko ay tere yu tar xagg na ci wax ne malaayika yi duñ dugg néeg boo xam ne photo da caa nekk lañ jubli ci malaayika yooyu nag mooy malaayika yërmande yi bul dégg loolu nga gis ku nekk ci sukuraat nga ne fi wékku poto ndax malakul mawti bañ a ñëw ndax mu continuer di dund du loolu malaayika yërmande yi lañ wax waaye su fekkee ne nekk na ci sukuraat te faatoom jot mu wékk fa ay photo it malakul mawti day ñëw rek jël jël ruux ga wallahu aalam kooku masala la boo xam ne bokk na ci yi ñuy dund lu aaje waxtaane leeral ko la defe naa ne ci la ñuy jeexale insha allah yeneen laaj yi ci des ñu bàyyi ko xel ci yeneen ndaje bi idnillah dafa bokk ci yi mënta ñàkk ci sëy kilifa kilifa la nikaaxa illa bi waliyin wa shahiday wa shahiday adl amul benn sëy buy wér lu dul sëy bi dafa am kilifa loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax kilifa nag ci la gën a jege ci jigéen ji mooy baay bi su fekkee ne baay ba nekku fa mën na faa ñàkk a nekk ngir ñàkk dund mën na faa ñàkk a nekk ngir sharia dafa dem ba ne ko sax nekk fekk ñàkk gi nekk ñooyam ndax buñ demee ba gëstu ba xam ne moom lànk gim lànk waa ji tegu ko fenn su boobaa kilifteefam day toxu jàll ca ka sës dañuy wax ne ka sës mooy doom ja su fekkee am na doom ju nekk mu kallaf moo gën a jege yaayam gannaaw bu bàyyu ndaw si jàllee ci wàllu sharia su fekkee bàyyi nekku fi doomam nekku fi day jàll ci geño gi ñam bokkal ndey ak bàyyi ñoo gën a jege après ñam bokkal bàyyi après doomi bàyyee ñooñu ñoo koy maye léegi nag su fekkee ne mbir mi dafa doxe nii kiy laaj wax dikk nañ ci bokk yi yépp ànd nañ lànk nanguwuñ koo may jabar ak lii nuy dund nun lin koy laabire mooy benn ci ñaari mbir na jiima def ay pexe seet ay nit ñoo xam ne suñ ko defalee ay jéego bokk yi danañ nangu ndax seetlu naa ne lu bari ci ndaw ñi nañuy dikke mag ñi suñuy ñaan séen ñañ jaboote ca loola la njuum